ah bu wii nag xëy na gis naa ñaari wax yoo xam ne dañoo tegaloo benn bi sëriñ jaal xaadim moo ko indi benn bi sëriñ jaal xaadim ñoo ngi lay nuyu di laaj sa jàmm ak sa jàmm yaram di nuyu cekkeen gépp bàyyiwuñu kenn benn bi sëriñ jaal xaadim moo ko indi benn bi sëriñ abdulatif Mbàkke moo ko indi mu mel ni wax ju njëkk jee nga xam ne dañ koo wax ci déclaration jumaay Touba euh, dafa am lu mu junju wax ci mujj ji nga xam ne itam dañ koo wax mu jëm ci Kazu Rajab am lu mu junju mu mel ni kon ñaari daje yi dañoo tolloo maanaam ñii dañoo jóge woon dañoo jóge woon ndindi dox ne dañuy ñëw Tuuba ne dox googu dañ koy sante Sëriñ Fàllu ah ñii nekkoon fële di football ci bitim réew gañe gone di mu nekk yaari coow yoo xam ne dañoo dajeeloo ci benn bis ah nun nag diine dabb daaxe lañu yore ndax lu neex waaye dugal ci diine waaye kenn mënut indiw lay ginnaaw loolu la yàlla nattoo nag loolu mën nañ cee continuer ndax Sëriñ Tuubaa ci jëmmi boppam ba mu fi nekk ba jóge fii li fi nekkaat gannaaw gi ñu di ko ko sant ñu di ko ko sant ko ko gërëme bari na ah loolu daal laa doon wax ne ñu xamee ko noonu rek xam ne ñee ñoom dañuy doxee ndindi lañ wax ñëw Tuubaa dox googu seen maam lañ ciy sant sant sa maam nag ah, ku koy def ne damay doxe dëkk sàngam ba dëkk sàngam ngir sant sa maam loolu kenn mënu ca dara feeg nag askaneloo maanaam feeg askaneloo ko nag ci diine lislaam bi nga xam ne moom la fu yonent bi bàyyi ndax diine islam moom loo ci askanele lu nekk day daal di war waa àddina gépp waaye bu fekkee ñoom ñoo ñu di seeti Sëriñ Fàllu rek ñoo ñoo ne dañuy doxe dindi jëm si Touba dañ koy sant Sëriñ Fàllu bu leen neexee saa ñu xëyee mën nañoo si seeni wata doxeen dindi ñëw Touba ne Sëriñ Fàllu lañuy sant buñ ko fa yemalee tamit nag amul benn problème ndax kenn ku ne sëñ naa jóge ci dëkk dox jëm ci ab dëkk te sa maam sant waaw loolu moom ni ko sëñ waxee ni la ku nekk sëñ naa jóge ci dëkk dox dem ci dëkk ne sa maam ngay sant nga yemale ko ci loolu loolu moom bu ca yemee dara nekku ca waaye bis boo ko defee nag ab woote dajale ci waa addina nag dangay joxe aw lay bala nga koo bala bala nga koo woote nag def ko am ndaje waa addina gépp nañ dem jëleen di doxe jëm Tuubaa moom bala ngeen ko def da ngeen ci joxe aw lay ndax li tax li tax ma wax ko mooy xam ngi ne ay nit a ngi taxaw jatu te lu ngeen def ñu wax ko Euh, ginnaaw li ngeen def ñu wax ko nag te buñ koy wax dañ leen di laaj laaji lay na ngeen waajal lay woo xam ne bala ngeen ko adressé ci diine ji moom na ngeen ko waajal lay wu wir wuy wane ne dox ci dëkk sàngam jëm ci dëkk sàngam ngir sant diw ci diine la bokk su fekkee nag adressé leen ko ci lu may ci seen maam rek ngeen ko adressé comme ni ngeen wax kooku mu amul benn problème euh, kenn sañu leen ci ne bi jaaratin euh, ndax ku nekk na ngay sant sa maam Eh, man de su ma jógoon Gandigal jëm sama dëkkab maam ba ma ba ma jëm ngir sant ko eh, su ma amee ab kaat kaat moom laay war wala ma war ab roppalaan ndax su ma demee ñaan ñaanal ko yàlla ne koy maam de maa ngi lay sant ndax yow bi nga fi nekk ay fas ki mbaam ngeen doon war te sa ñaan gi nangu na ba ma am kaat kaat kon damay damay war kaat kaat dawal ba gaare feneen ne ko xiij muy tëb di dal ma wàcc ñaanal sama maam sant ko ne ko léegi maam mbaam xew yi ne kaat kaat moo xew man bu doon noonu laay sante noonu laa koy sante waaye du ma delluwaat ca ca saani maam yi nga xam ne booba xiiwal amut ma ngaa sa tànk di dox kenn ku nekk ni ngay gisee nag sa sa say mbir noonu nga koy doxale loolu rek mooy mooy àddina eh, nit ki nag eh, gore na ci léppam ba mu mooy sës ci diine li ci bokkut gore na nag ci léppam ba mu mooy def lu araam ak sës ci diine li ci bokkut Euh, doxi di di dem tubaa moom sant ko Serigne Fallou ay sëtam di ko def loolu moom dara nekku ci mën nag dox ga moom buñ ca boolee njàngum alxuraan baax na buñ ca boolee sikkar baax na buñ doxee ànd ak ak dalit baax na euh, buñ doxee li coowaloo yi tamit ba tey baax na rek ndax ginnaaw moom adressé ko ci diine ji dañ ko adressé ci ne Serigne Fallou la ñuy sant te dox diggante dëkk ak ab dëkk lañ koy santee loolu moom fekk ñu ngi ko yemale Sëñ Fallou daal wax dëgg yàlla dara nekku ci waaye nag nañ ko ci yemale képp waaw ndax bis bu ngeen ko askanale ci diine moom gaa yi laaj leen dox ci dëkk dem ci dëkk ngir sant te li ci tuyaa fan ngeen ko gis te su boobaa du ngeen amulay wu ngeen wu ngeen ko wu ngeen ko wu ngeen ko wu ngeen ko layee maanaam loolu moom la ngeen ko la ngeen ko suuraale bu fekkee nag dangeen di dox diggante ndindi ak Touba ngir sante ko yàlla ak itam yëgal seen bopp ne noonu day ba fi suñu maam yi nekkee seeni tànk lañ doon ngàbbu di dox diggante Ndindi ak Touba dox diggante Taïf ak Touba dox diggante Daaru Muxti ak Touba dox diggante Njaareem ak Touba yàlla nag noo ngi lay sant bi nga xamee ne xiiwal am na ba suñ coono booba nga xam ne suñu maam yi daan nañ ko sonn ci takk seen digg di dox ay dëkk ki dëkk nga dindil nu ko ba indil nuy watan am ay godorong bi ci daw kon yàlla ñoo ngi lay sant ci loola su boobaa moom sant ga day day day daal di tukki ak sant yàlla directement sans intermédiaire ak yëgal sa bopp ne ndeke ci maam maam ñoom ci lii la nekkoon te yàlla génn nañu ci boobu tamit ba tey dana baax boobu tamit ba tey dana baax boobu boo ko defee ah, dana baax waaye waaye bu dee ndox ngir dem rek sant Sëñ Fallu moom dara nekku ci waaw kuy sant sa maam te di ko sant dox ci dëkk jëm ci ab dëkk feeg indil feeg bëggoo koo indil aw lay ci lislaam adresse jikko ci euh, adresse jikko ci sëñ Bamba mu jokkaloo ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam su boobaa nag coow dee dikk ndax suñ tubaab moom lépp lu ci waat di adressé lu ne te diine lay doon ndax wootewul lu dul diine te lépp lu lu waay di woote ci diine di ko adressé nanga ci wutulay bala nga koo bala nga koo def euh, diine nag li koy yokk mooy dama juddu fekk ko fi na ngeen ko suuraale na suuraale ne diine li koy yokk mooy dama juddu fekk ko fii loolu yéen ñi tàmbali dox googu na ngeen ko suuraale bu baax dama juddu fekk ko fii eh, koo xam ne lépp loo def ñu ñu roy la ca eh, te buñ la ca royee mu jëm yomal xiyaam te mën nga ko def bàyyi ko fi génn àddina dem junni at ay nit ñëw di ko continuer rek sax ko saxal ko ci ne yaa ko njëkkoon a def eh, bu yàggee loola daanu ko limaale ci diine te fekk yow yaa ko defal sa boppoon ngir de da ngay sant sa maam euh, di leen leeral bu baax rek ngeen di tàqale diine ji ak li ngeen di defal seen bopp bu ngeen ko defee rek maanaam xëy na ñiy kontar danañ leen dañ leen fi baax ndax euh, marathon la xaw ma nuñ koy waxee tubaab bi dañ koy def dañuy jóge ci dëkk euh, dox jëm ci beneen dëkk mbaa ñu jóge ci ab dëkk dox ci biir dëkk bi ab diggante bu sori dem nañ sax ba egg ci euh, buñ ko dee def dañ cay wuti sax ay ndam ak ku ca jiitoo ku dàq waaxoo kooku nii loolu lépp moom tubaab yaa ngi koy def te kenn waxu leen dara waaye tax kenn waxu leen dara dañ ko adressé wul ci diine ji dañ ko adressé wul ci diine ji dox gi moom bu ngeen ko adressé wul ci diine ji bëgg ko cee boole moom ah loolu moom dara nekk ci waaye nag bis bu ngeen ko adressé ci diine ji bëgg ko cee boole mbaa ngeen bëgg ci dig nit ab yool ëllëg euh, boobu buñ ko ciy fay rek moom coow dana tàkk loolu moom dama leen ko wax mu léegi ndax bu boobaa lépp luy lu ñuy bind ci loo xam ne malaaka da koy bindal nit ki euh, te bu yow mal xiyaamee ñu teg ko ci ci téere jëfam mu fajal ko dara loola moom lu ak lu mu doon ci diine day am ab day am ak ëkk jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax xalaalu muhammadin xalaalun ilaa yawmal xiyaamati xaraamu muhammadin xaraamun illaa yawmal xiyaama te man ahdata fi amrina asa ma laysa minhu a waradun te loolu na ngeen ko setantal bu baax doxi ndindi dem Touba daal sant suñ fàllu ay sitam sañ nañ ko fekk adressé ko ne daya doon lu war la waaw fekk adressé wuñ ko daal ne daa doon lu war lislaam la su boobaa am ngeen ci droit saa yi ngeen ko doxee itam na ngeen xamal nit ñi ne lii du lislaam noo ko defal suñu bopp te suñu maam la ñuy sant te ngeen yemale ko ci seen bopp te bañ ci woo Sénégal gépp ndax su ngeen ko général généralisé Sénégal gépp dugg ci rek mu nekk ab xaanuun ngeen adressé ko ci diine su booba aw lay da di war nag aw lay aw lay wu jóge ci yéen nag ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di war waaw ah, dukkat nag yàlla bañ ne ko fépp ba mooy gàddu jaas yi dem ci ab xare di xeex yi maa ngi leen gis na ngeen di dukkat waaye dukkat moom yàlla bañ na ko fipp ba mu mooy ŋàbb jaasi taxaw ci xeex ba di xeex yi dafa am gis naa benn waaye mu yëkkati loxo takk ndigg li di dukkat ma gisee loolu rek sama xel dafa dem ci addis booba noona yeneen bi ne ah doxin wu yàlla bañ a ngii de wudul fii waaw fu dul fii yàlla bañ na fa doxin wii maanaam bu ngeen dukkatoon ci digg toolab xare daal di xare ngir taxawal islaam booba moom dukkat googu ngeen di def dina war waaw waaye bu fekkee dukkatu leen ci toolam xare moom dukkat googa ti bi nee na haasi il misia misia boobu bu yàlla bañ la fu dut fii boo ko waaj a defee itam noonu la ndax ka ka nga xam ne dafa takkoon fu euh, musuwaar ba ca bopp ba ngàmb ñetti ñetti tàndarma euh, daan na yonent bi waaw noonu yàlla yii ma jàkkaar lool song leen xeex ñoom dee ci rek moo ma teree dem àjjana mu ne ko loolu doo nga la teree dem ajjana de boo ca deexee dem àjjana boo leen reyee ba ñu jeex nga am ab yool euh, te dem ñibbi mu daal di ngàmb ñaari tàndarma di ko ñetti tàndarma di ko lekk ba mu ne ba bëgg ko jëmale ci gémmiñ gi ne mo diggante ma sama digganteeg àjjana lekk ñetti tàndarma xëju fii te àjjana am nay tàndarma daal di sànni tàndarma ya bañ koo lekk di dukkantu nag daal di def noonu ngeen di def jógin di di jëm Tuubaa daal di uti nag ca xeex ba yeneen bi di ko xool ba yàgg mu ne doxin wu yàlla bañ a ngi nii de fudul fii doxin wu yàlla bañ dee ngi nii fudul fii kon su ngeen ko dee def na ngeen ànd ak dal ak teey te bàyyi raj-rajloo ak coow te dox ndànk bañ a dukkat ndax dukkat moom ak tëb di dal yëkkati la loolu moom foo ko def fu dul uti ca xare ba di xeex rek yàlla bañ na ko loolu moom addis bu wér dëng la bu ma leen di jox doxinu bu yàlla bañ la de fépp fu dul fii loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon kon na ngeen na ngeen sàmm bu ngeen ko deeti def ngeen ànd ak dal bañ a takk ay rajo di waxalikoo di coowaloo bu ngeen tekkee ay rajo ngeen di tudd yàlla baa ngeen di jàng xasida wala ngeen di sikkar wala ngeen di subhaanallaay ngeen ànd ak dal te bañ a coow bañ a sorxo sorxo bañ koo niroole ak li nga am bañ koo niroole ak manifestation ndax su ngeen ko niroole ak manifestation ba noppi itam tolloog bisu football moom bu ko waa jumaa ji déggee naan xanaa ñi football li bee tax ñuy def lii football bi nag du sax ba faw te Kazu day sax ba faw ah, c'est la première fois nag ngeen def ci loolu Sëñ Fallu nag defe ci togg ay ñam joxe ko la la tàmbalee te daan génn Touba dem nit di xamu mu ko daa defe ji ah, ndax man histoire boobu dama kaa maîtriser wul waaye defe naa ne ci doon la tàmbalee ah ñi di ko yokk di jokk jëlaate nag ba egsi na ci di di jëm Touba waaye daal li may bëgg daal na ngeen ko yemale ci yéen sëti Sëñ fal yooyu sant Mbàkke te bu leen ci woowaa Sénégal ñi ñi déggee oto ñëw ba foofu di jóge Ndindi di dox di dem Touba loolu moom ab sànjala boo xam ne kenn mënu ko lijjanti tey amutu lay loolu moom mag leen ko ci baaxee ndax àddina egg foo xam ne ñun ñi nga xam ne seeni taalibe lañu dañuy dégg lu nu yi ay suñuy moroom di ko wax te ci man daal kon nag dañuy leeral bis bu nekk nag suñu diggante ak yéen dañ ne nag koo ne tuma la topp fa nga jëm ak moom daa soriwul boo jëmee ci gàcce bi nag ñu dëpp la dëpp nga të da ngay gaa yi ca yoon wa ñu dem bala ca gàcce ba ndax awto ca yoon wa di xool bu baax ndax yéen ngi ci kaw yoon wi suñ tubaa doon ba tey wala ndax yéen a ngi yokk ci seen yi bopp am déet di leen xool bu baax ba xam ndax yéen a ngi ci yoon wi suñ tubaaru doon am déet wala ndax jàll ngeen yokk ngeen leneen am déet am sax saxaar mu attan bagage du tax loo romb teg ko ca am sax saxaar mu attan bagage du tax loo romb teg ko ca de da nga cay teg loo xam ne lu lu lu tegu la te am njëriñ suñ tubaa saxaar la goo xam ne du lu waay yenu rek na ko ci mbopp lu waay yenu rek na ko ci mbopp lu wax na ko ci mbopp Euh, bu ngeen moytuwulee nag li li dal li dal li dal yenent bi ci diine islam dana dal suñ tubaab rek ci diine islam mooy ay éti euh, mooy ay étudiant murid <laughs> maanaam nit ñoo xam ne dañ ne laan li suñ tubaab da koo bind ngeen ne déedéet mu ne defuma ko <laughs> te su boobaay doo ci mën dara ibaadu yi ngeen di gis ak waa falaak ñii ñëpp ngeen di gis jiyoo gi ñuy jiyoog ñoom du dara lu may li yenent bi da ko wax ci hadiis déedéet defuma ko bu ñu mën ci defuma ko it nag kenn du wax dara waaye doo doo defuma ko te doo ko fi defee di ci xuloo ko cooloo ko xasante moom mënoon na cee ñàkk man Cheikh mii di wax ak yéen di fu fu may dox ngir sant yàlla su ma amee roplaan moom laay war ndax ci samay maam ci dox lañ dëkk kon bu ma demee ba yàlla tàggale ma ak dox su may sant yàlla ngir dox ga ma amee doon dox moom xiiwal ga ma yàlla jox laay jël di ko di ko dañal bu baax sax di ko sant yàlla man noonu laa koy gisee eh, noonu laa koy gisee ndax sant yàlla ci tàggoog laa ko ngooñ moom lekk ginaar moom moom lañ ko mën a nangoo waaw sant yàlla ci laaxu eh, ngooñ lekk ginaar la ak sant eh, waaye nit ku nekk nag ak naka gisee eh, man sama baay Sëriñ Fàllu lañ ko tuddee bis bi Sëriñ Fàllu génnee àddina bis bi Sëriñ Fàllu ganee àddina moom ci la génne àddina moo Kazu Rajab ji ñoo tolloo tembe tembe tembe tembe dañ ko yenu yóbbu Tuubaa mu fanaan foofu bët set ca kasu rajab ja te fekk nit ku génn àddina la ñu door koo fab dem suuli bañ kasu rajab ba ci suba ko lañ ko suuli te gëm naa ne day bu fekkee suñ fàllu am na turandoo wu ko mag ah du bari de du mat fukki turandoo de ndax ca jamono siñ suñ woon lañ ko ko tuddee woon booba suñ tubaa gi ci jamono boobu lañ ko ko tuddee woon boobu lañ ko tuddee woon suñ fàllu eh, kon suñ fàllu man am nun am nañ ci wàllu mat sëkk doonte nag daal ko gis dañuy bokk waaye daal Euh, nu góorgóorlu daal euh, bañ di importer ndax lii doxe dëkk dëngam dem dëkk sàngam moom chia yi laa gis ñi di ko def ca ca ca Bagdad ca Irak Irak moom chia yi dañuy dox diggante bu sore sore sori boo xam ne kenn mënu laa misaal ak soreem dox gu metti la goo xam ne kenn mënu koo misaal ne dañuy dox dem Karbala ca Useynu ibnu Ali te xam nga loola soo ko xool ci yaat doo ko gis fenn fu fuñ ko mën a layee fu dul ah, danoo neex rek nu di ko def ah, waaye du diine lislaam maanaam diine islaam mooy li nga xam ne ah, képp ku di ashadu an laa ilaha illallah daf laa war loolu moom lañuy wax diine islaam waaye ka mbiram di ko def nag te loolee muy def amu caw lay ci alxuraan mënu koo indil ren lay waaye nee na daa koy def te saa maam laa koy defal loolu moom jërul poñante jërul coowaloo bàyyi leen ñu dox si rek dox ba doyal su ngeen ko mënee saa yu ngeen xëyee da ngeen doxandi di ñëw Tuubaa fii ba Kazu Rajab ji ngeen ko mënee ndax entraînement la te dina wàcce greffe gi tuutal biir yi wéral yaram yi dara nekku ci dana yàlla teg ci jub dana yàlla teg euh, nag géej la goo xam ne lépp loo sànni ci biir mu bokk ci day wéy lépp loo sànni ci biir te bokk ci it day duusi di ko génne di duusi di ko génne di duusi di ko génne ba sànni ko ca pere ba mu doon fa waaye du loolu moom nañ ko na ko ñëpp xam Sëñ Tuubaa la goo xam ne lépp loo ci def te bokk ci day duusi di ko génne di duusi di ko génne di duusi di ko génne ba sànni ko ca biti mu doon mbalit waaye di ca continuer loolu moom na ko ñëpp xam ah, bi may gonee kër Sëñ Tuubaa googu ci njaarim nga xam ne eh, ñetti téeméeri mètre la guddee yaatoo ñaari téeméer juróom fukk eh, dañ daan daw di ko wër juróom ñaari yoon bisu guddi gàmmu dañ ko daan wër juróom-ñaari yoon di waaxu di ko wër juróom-ñaari yoon lañ ko daan wër waa naan wër gii soo ko wëree ah te nga yéene ci aji wër kaaba ga danga koy am waaw waaw nangam nangam waaye man xamoon naa ne li li li li ci mag ji julloon rek mooy juróom-ñaari yoon moom soo ko wëree kër googu eh, xam nga yaari ñetti téeméeri mètre juróom-benni téeméeri mètre la yaari yaari ñaari téeméeri mètre ak juróom fukk juróomi téeméeri mètre la euh, juróom benni téeméeri mètre ak juróom benni ak juróomi ak euh, la ak téeméer juróom junniy mètre ak téeméer nag boo ko defee juróom ñaari yoon dalay jox juróom ñaari euh, junniy mètre ak juróom ñaari téeméer waaw dalay jox juróom ñaari junniy mètre ak juróom ñaari téeméeri mètre mu juróom-ñaari kilomètre yu tegal juróom-ñaar téeméeri loolu bi ñu nekkee gone daan nañ ko def foofu ci jumaa ji ci jaarim euh, mu mu tolloog marathon yi tubaab yi di def waaye nag dañ ko def ñun te di ko def ci yoonu yàlla maam di ko def ci tollale ko bisu gàmm waaye nag ñekke daan pas euh, ak daw safa ak nag <laughs> ñooñu ñoom xam naa ne ci jaala lañ ko tegoon nag ak ñàkk a xam ak rafet njort ak defe ni diine am xel moo ciy dem diine am xel lu ci dem <coughs> diine damaa foog nekk damaa yaakaar ne lii du garaawut ak waamul taw ay loolu damaa foog nekk damaa yaakaar ne diine moom loolu du ci dem bu ngeen amee lu ngeen di yaakaar ko foog moom lu ngeen ko foog ci organisation addina bi te bu leen ko bu leen ko bu leen ko bu leen ko bu leen ko ñambaas ci biir diine ci ndax bu boobaa cool cool yi indi rek yoo xam ne ña ngeen di a dool eh, di ñu di leen weddi it dañuy noppi te xam ne seen lay woowa ëkkale bu kenn mën te buddi ndax day ami reen ndax moom ci nit ba koy sës mu mu mu ñëw ba fii te bu boobaa itam ah dañuy dañuy neutre seetaan lii nag ñoom ak coow la rek waaye nun duñ ca mën a wax su boobaa ah, dox nag guddoon ak jaamu yàlla fenn dong la am ci àddina dox guddoon ak jaamu yàlla fenn dong la am ci àddina nga xam ne dox googu dañ ko généraliser mu war képp ku ko man moo di def safa ak marwa dox safa ak marwa daal ak ramlu rijaali eh, fi batni masil jooju suñ tubaab wax ca ca tasawur di si xaar man dox gu amab yool eh, ci diine ñu boole ko ci bu bokk ci ponki diine da asa yu bay na safa wal marwati rek laa ci xam ne dox la gu ñu boole ci diine te benn place lañ koy doxee te ñëpp la war ci ki ko man nga def ko benn yoon ci sa dund goog ak dox li laa xam ci diine muy dox goo xam ne doxu dox dox dox gu war la goo xam ne ci ponk lislaam la bokk dox yi ma xam mu am ab yool yi tamit nga xam ne am na ab yool saaba yi dañoo mës a toog xëy toog noonu am waa ji leen romb di dukkat di dem Euh, mu di ñi di ko xool ba yàgg ñu ne ay waaji waaji ak dooleem jëg dukkatam yii ak amoon njëriñ su ko defoon ci yoon yàlla kon nga xam ne dukkat jëm ci jihaar fii sabilillahi rek moom la gaa yi xam saaba yi moom dukkat jëm say xare ba jihaar du fii sabilillahi moom la moom la yàlla xam moom la saaba yi xam moom la yent bi jàngale bañ ko waxee ne ay waay waa ji dukkatam yi dukkatam yi ak kàttanam gi ak a neexoon mu mu daw jëm ci jihaar yi ci yoonu yàlla yenent bi ne leen ah bu fekkee ni dafa jóg dey di dukkat ngir wuti wërsëg wu mu dundale ay dund ak njabootam mu ngi ci yoonu yàlla bu fekkente ni dafa dukkat itam ngir dundal boppam sàng boppam ba mën a jaamu boroomam mu ngi ci yoonu yàlla bu dee daa lekk ba suur nag di culpi culpi dong nag ci yoonu seytaane la nekk waaw bu dee daa lekk ba rek di culpi culpi la nekk loolu it dama addis ba te mokkal naa ko ci wolof waaye loolu itam addis wàcc na ci waaju xëyoon ndékki ba regg di diikku-dikk yi dem romb saaba yi ñu toog ci pénc mi saaba yi na ah, waa ji borom doole jéeg sawarteem gi ak yukk-yukkam ji ak a neexoon mu def ko ca toolu ba ak mu def ko ci yoonu yàlla yeneen ti naa bu xëyee day di ñukk-ñukk yi ngir di liggéey yi loo xam ne bu ko indee dundal ci ak njabootam mu ngi ci yoonu yàlla su fekkente ni itam dafa xëy di dukkat ngir dundal boppam liggéey ngir dundal boppam mu ngi ci yoonu yàlla bu dee daa am doole sawar doo nga curpi curpi doo nga nag mu ngi ci yoonu seytaane loolu day ab hadis wàcc na ci dukkat bi alxuraan xamit mooy tàggat sa bopp ngir am doole ba bu jiyaar jotee nga jóg jàkkaarloog noonu yàlla yi nga xeex am ak wir am kàttan miin coono bu fekkee ni yaa ngi xëy day takk sa dàll yii jóge ndi di daw ba Tuuba daw ñibbiwaat ñu ne la waaye looy uti Tuuba ak ndi di ko daw bis bu nekk nii nga ne ah man kat damay entraîné daw pour miin daw ak coono ak miinal sama bopp ñaataange ngir bis bu ñu bëggee toroxal islaam ñaataange lay jur te su boobaa yëngu toog daw dana ci amu yoon te dama bëgg a miin loolu balaa booba su dee loolu léy mu ngi nekk waa ay doole umastata'tu min quwwatin wa min ribatil xayri turhibuuna bihi aduwwallaahi wa aduwwakum euh, na ngeen ko def ngir waajal euh, kàttanal seen bopp ngir waajal seen bopp ba seen i noon leen ba du ñu ñaaj diine du ñu leen ñaaj bu fekkee loolu lay itam ngay entraîné sa bopp loolu tamit ba léegi islam d'accord na ci loolu tamit ba léegi mën naa nekk bu dee ci wàllu football bi ñuy football nag ñu naan boppam aussi bañ taggoon di ko di ko paasante moom la loolu moom dëgg <laughs> loolu moom gars yi dañ ko tollale rek waaye boppam euh, ni mu diisee ku ko ci suuf boo ci sa sa sa tànk euh, fëgg gu tax bopp boo nga paas sa morom da ngay ngol-ngol sa tànk fekk la euh, waaye loolu moom dañ ko doon wax rek waaye ne ko doon wax teguñu ko fenn ñàngal lañ ci jubluwoon waaye du woon dara. sport nag danaa ci ñëw wax ci ndax itam ah, euh, bu bu ñu yaakaaree ne Sëñ Tuubaa dafa tere ko sport déedéet waaye sport bi Sénégal yi dafa Sëñ Tuubaa da koo tere gépp tàggat yaram goo xam ne da nga génne say awra maanaam bu dee góor mu sol loo xam ne du sàng ab óomam bu dee jigéen nit kasaalika naka noonu boobu tàggat yaram bu dee ni loola mënu caa ñàkk dëgënul bépp tàggat yaram boo xam ne danga koy def di ko def ci waxtu yi ñuy jaamu yàlla te bu waxtu jaamu yàlla jotee doo ko defi ña nga xam ne ñoo lay seetaan duñ ko defi googu tàggat yaram yi tamit dëgënut araam na gépp tàggat yaram goo xam ne danga koy def te boo ko dee def itam da ngay jaxase góor ña ak jigéen ña ñu àndi tàccoo ko coowaloo ci benn birib googu tàggat yaram yi tamit araam na yéen waa Touba saal yooyu ngeen di toog góor ñi ak jigéen ñi ñi seetaan football bi bu fekkee nit ak ay jabaram ak doomam ya dongale day dagan na waaye bu ci góor góor noon ak jàmbur bokkee jege ci bitti ñëw ne dama seetaanaan si wala jigéen ci doonam jaambur jóge ca bitti ñëw fekk la ci sa kër ak say doomi góor ngeen bokk jaxasoo ci sal toog na danoo seetaan naan fi jaxase googee ngay jaxase góor ñi jigéen ñi di moom di nga ca am ab da nga ca dañ la ca boo xam ne du Sëriñ Tuubaa moo koy lijjanti ndax dara la koo loolu itam na ngeen ko xam ah googu ngeen di toog nag di gis awray góor ñi football wala ngeen di gis góor ñi jaxasoog ay jigéen boroom xam-xam waroon nañ ci ñi ne loolu du ay jëmm ay nataal la ñi ne ay nataal la waaye jëmm lañ ci jublu te jëmm koy def foofa dañ fa waroo moo tax ma gàttal fa sama sama sama làmmiñ sport bi ñuy def itam di ci fayeku ab xaalis am nañu yaakaar ne loolu dafa araam déedéet sport bi ñuy def di ci ko ab xaalis du xaalis yi ñuy fayeku ci sport yëpp dafa araam lépp loo xam ne jongante la moo xam dàqe la moo xam bëri ku daan la moo xam fii la moo xam diir jam ko ko dàqa jam la yooyu yëpp islam d'accord na ci dàqe na ci di diir jam ku jam am nangam islam d'accord na ci ku mën a fii fii ba dem fële islam d'accord na ci allimu awlaada um arrimayata wa sibahata wal jariya yeneen bi moo ko wax jàngal leen seeni doom tir de mooy tiire te doo mooy ak daw ab diggante ak fii ñu ne lan moom nga ci jiblu mu ne bu ngeen ko defee da ngeen leen tàggat ci yetti yëf yoo xam ne danañ ko mas a soxla ji diir jam buñ jàkkaarloog seeni noonu danañ ko soxla fii jéggi géejit bis bu ñuy def jiyaar yori gaal gaal ya toj ñu daanu ci biir ndox mi dañ ko soxla ah, daw itam kuy jiyaar da nga daw ci say tànk kon danañ ko soxla kon na ngeen ko jàngal seeni doom kon bis boo xëyoon ndindi dajale see doom ne daw leen ba Tuubaa daw leen si ñu ne la bàyyi loo jublu ci lii nga ne dama ba ngeen mokkal daw ndax bis bu ñu ne daw leen ci xare ba ngeen mën a daw bu boobaa day dagan bu boobaa day dagan léegi nag dàq yooyu ak bëre yooyu yonent bi daana jël euh, Asan ak Useynu daal di ne euh, faatimatu faralal Asan maa faral Useynu léegi tegal leen ay tàndara mën a da bëri leen ko daan jël te loolu dañ lim ci jubloon mooy jàngal leen bëri bu fekkente ni bëri ba dañ koy def te awra du ca feeñ bëri ba dañ koy def te duñ ca faat julli bëri ba dañ koy def te góor ku jigéen duñ ca jaxasoo bëri ba dañ koy def te kenn du ca teg naan ku ku daan am lii ku daan am lii bu fekkee ni loola la da dañ ci maandu duñ jox dara waaye mu ne bu doxee diggante nit ñi ak jaamu yàlla jaxase góor ñi jigéen ñi ñu di ca tekki carte ku gan jël wu kii daane kii ma am kii mooy daan déedéet moom kii mooy daan teg naa nangam teg naa nangam loolu mu dëgganut boobu islaam nanguwu ko bu fekkente ni kursi la ci wàllu fas wala wata sax bu la neexee ak lum mu mën a doon bu dee kursi la ci wàllu fas walla tànk wala lum mu mën a doon eh, mën naa dagan waaye nii lay dagane fañ koy defee awra du fa feeñ fañ koy defee duñ fa faat julli duñ ko def ci waxtu ñuy julli fañ koy defee góor ñi ak jigéen ñi duñ fa jaxasoo bu ca pay amee itam ñay dawal duñ ko cotiser nguur gi mën naa jekki-jekki def ab jëg ñu daw fasi kursi ku gañ jël loolu mën naa nekk bu fekkee aw nit a dajaloo woon sax nag génn xaalis ba def ko itam te carte nekku ca mën naa nekk bu fekkee ne itam ña yor ya di kursu ñoo te xaalis ba teñ boole ca fas woo xam ne mën naa raw te daana daw raw te du teg dara te bu rawee moom dong moo jël ñépp ñàkk mën naa nekk bu fekkee nag ku ne loo dugal ñu boole dajalee ku raw jël daganut bu fekkee ni nag ku nekk day am loo dugal ñu boole dajale ñu wutiwaat feneen leneen boole ca bu eh, buñ ko boolee mu nekk ay millions ku raw am nangam bu am nangam troisième am nangam fa la yem buñ dajalee millions yooyu yëpp ba noppi nag premier nangam deuxième nangam troisième nangam fa la yem ña ca des ñàkk te dañoo tegoon ña ko organiser bopp xaalis ba dugal ci seen poche kooka daa daganut araam na loolu yëpp ngay gis islam da cee addu te doon loo xam ne lu waree lu waree fa xam la yan yàlla tënk ci jub yan yàlla tënk ci sellal Euh, asalaamaaleykumaat wa rahmatullahi wa waaw dafa am ku ma woo laaj ci sama xaas te man bu ma waxtaanee ci dara boo ma ca laajee ca wa ca ca fa ma ko waxee laay dellu falaa falaa lay tontoo maanaam dafa am ku ma laaj ci ci sama xaas ci ñaari waxtaan yooyu nga xam ne mooy waxtaan wa këli njëkk a def muy ki doon wax ci baatu jumaa ji ak kii mu ci def muy ku wax ci baatu doxkat ya waaw gi ah, boo seetloo seeni wax dafa am fu ñu fu ñu laje ñoom ñaar fu ñu laje ñoom ñaar mooy kële dane bi ñuy julli gee dañ ñoo tàngal ba xamuñu lan lañuy julli Euh, la tax ñu tàngal ñu nag mooy futbal boobu gañe am cooli ne combo te koo xam ne fi nga nekk dëkk fi digganteem ak fi Sëñ Tuubaa tëdd ay meetar la loolu waru la yéen ñooñu nga xam ne nag yéen a wër Sëñ Tuubaa seen diggante ak moom dooni meetar yéen ñëpp Mbàkke ngeen sant ah xaw ma ko ko ci sant ñi wër jumaa ji kër yooyu yëpp ay seeti Sëriñ Tuubaa ñoo fa dëkk waaye sax yi dëkku fa kon eh, maître yooyu waaj eh, sëriñ boobu di wax seen kër yooyu la seen kër yooyu ñoo tolloo ki maître kon coow li ci seen kër yooyu la ndax wax moom day leer bi ñuy julli gee xamuñu li ñuy julli ngir tàngal ñu ngir football kon coow lañu doon coow ñoom ñi nekkoon ci jumaa ji dégg nañ ci Sénégal woo moo gañe nangam nangam dégg nañ ko ci man ngaa sol nag ay dara te supporter Sénégal comme ni nga mën a solee ay mayo di supporter Sénégal man ngaa sol ay dara te supporter Sénégal loolu it loolu it lu jar setantal la Euh, la ca topp moo di ñi doon def marche bi bu fekkente ni dañoo julli tàkkusaan ca jumaay ndindi ja ñàmp seen ak tànk di ci kar di laay-laay ba timis leen ci yoon wi te egsi wuñ ci jumaay Tuubaa yi te ñu tolloog fu jàkka nekk ñu taxaw bàyyi lañ doon def jàdd fa jàkka ja ànd ak iliman ji ci gal ak bañ a sorxo sorxo jullendoog ñoom ba eggal génnaat dem dagg ca taliba continué waat seen sikar ne Tuuba la dem dañuy sant sëñ Fallu ba ñu yegsee ba dugg ci biir Tuuba dégg nodd ga ñu ne xerem daa di jiwali ne mott ci biir jumaa ja dem jàpp ne rugg ànd ak iliman ja julli na mu santaane na yàlla santaane julli ga ba mu yegg ñu ñaan tasaaroo ñu tëj jumaa je ilimaan ji ñibbi jullikat yee ñibbi ñu delluwaat foofee ca mbaaram Sëñ Fallu ma nga xam ne digganteem ak jumaa ji moom ay mètre la nekk fa di tudd yàlla ka sant yàlla te kenn déggu ci Sénégal gañe Guinée wala Sénégal gañe Burkina Faso lu may Sëñ Bamba ak Sëñ Fallu dong lañ ciy dégg loola dara nekku ci waaye su fekkente ni ba ngeen déparé ne da ngeen di sant da ngeen di sant sëñ Fallu di dox di ci kar di laay laay ba timis jot bàyyiwu leen la ngeen di def julli tooñ ngeen yàlla tooñ yenent bi tooñ sëñ Fallu ndax ji aar a gën a màgg fuuf doxeen di di jëm si Tuubaa sëñ Fallu te bu ko sa saaba yi daan def ba julli jot dañuy def salaatul xawf yi buñ ko mënul waaye julee baax na fu waaye jublu baax na waaye foo ñu def ko bu fekkente ni ba ngeen jógee ndindi jëm si Tuubaa timis jote na leen ci yoon wi taxawu leen julli tooñ geen yàlla tooñ ngeen yenent bi tooñ sëñ fàllu te ña woote woon daje ba dinañ ko layoog yàlla ak yenent bi ak sëñ fàllu keroog yomal xiyaam bàyyi waxtu julli ngir dox di sant sëñ fàllu moo suñ sant sëñ fàllu sant ko kenn ba ngeen egsi itam ca biir Touba te yéen seen kër gi ak jumaa ji ay mètre la te waa ji daa wax ne koo xam ne fi nga nekk digganteem ak jumaa ji ay meetar la bu doon ne ba ngeen egsi day fekk ñuy julli gee ñu ñu nodd gee da ngeen xerem ba mel ni nit dafa dee jigéen ñi moom bu ñu yóbbee julli ca jàkka ja boo dem julli ca mbaaram sëñ fàllu waaye yéen góor ñi ngeen daal di ci jàkka jàpp ànd ak iliman di julli niñ ko santaanee ànd ak ak dal zakina ak waqaar ba julli gi egg ñu ñaan tasaaroo tëj seen juma dem seen yéen ngeen delluwaat foofa tey tudd yàlla ak yeneen tibe ka jàngal xuraan ak ñaanal sëñ fàllu te kenn tudd fa baatu Sénégal ak football kon kii doon wax ci jumaa ji ne ñi ko doon wax dandewuñu ñu lu dul ay meetar du waxe noonu na ngeen jàngaat ci diine ji te jëfe ko te ngeen di roy ci seen moroomi jullit yi nga xam ne ñoo leen gën a dégg diine donte nanguwu leen ko donte nanguwu leen ko laa wax am na ñoo xam ne ñoo leen gën a dégg leen ko maa ngi leen di fàttali woon di wax ne americain yi bi ñuy def seen diggante ak taliban yi bu leen yaakaar ne damay tënkale seen tuuba ak taliban yi déedéet seen tuuba mu nekkatu fi yéen a fi nekk yéen ñii laay waxal waxuma ak seen tuuba damaa bëgg mu leer yéen ñii nekk doon marché yéen personnellement yéen laay waxal waxuma seen tuuba yéen laay wax ndax yéen daje jamono jii li xewe te seeni naw lay jullit doxale ko noona ma bëgg leen a xamal ne su li fekkee doxalewu leen ko noona ëllëg na ngeen ko doxalee noona ndax noona lañ ko doxale ñoom dañ doon waxtaan ak tubaab yi ci wàllu jubaloo jubale ak ñoom ñu génn seen dëkk may leen afiya ñu continuer seen diine waaye bu dee ajjuma la ñu ne ajjuma duñu waxtaan ndax ajjuma dañuy julli yi buñ nekkee te daje ba ñu ne leen yéen du ngeen jullit ñun ay jullit lañu fu julli jotee immaa ñu taxaw nodd ci biir saal bi sàppe julli ci seen kanam tayaay ñaan sëlmal ñëwaat mbaa ñu balin fi génn dem ca jàkkee julli ji tubaab bi ne may nañ léegi amul problème fu julli jote kay kenn day jóg noddu gaa yi jàpp gaa yëpp na xerem toog ñuy julli ci seen kanam ba eggal dem loolu ngay gis tax na ñu bari ci ñu nekkoon foofu dugg ci lislaam ngir organisation bu rafet ndegam ñooñu jàkkaar la woon ak seeni noonu ñoo leen bu julli jotee kat dañuy julli yéen ñi sant suñu fàllu bu fekkente ni day ba ngeen dee dox ba timis jot taxaw ngeen dugg ca jàkk yi julli julli gu sell génnaat ba ngeen dee ci fekk jee jot nekku leen fay coowaloo lu may degee ngeen jubal ci jàkk ja ànd ak ilimaan ji julli ba ilimaan ji génn dem ngeen wéy ci ngeen doon def te kenn déggu fa football kenn déggu fa Sénégal kenn déggu fa Guinée kenn déggu fa Burkina Faso lu leen waaye wax moo leen tooñ su fekkee nag ba ngeen ak seen sorxo sorxo ñi julli bàyyiwu leen la ngeen def dem ca jàkk ja yéen a tooñ bu ngeen ca boolee tudd keneen ku dul yàlla ak yeneen bi suñ fàllu nag ñu di fa tudd ay football da ngeen a toññar bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah